ci euh, Ndakaaru capitale du Sénégal mhm. ngeen am fi un adversaire de taille mhm. moo xam ci euh, waa Wallu moo xam ci Benno Bokk Yaakaar mooy adversaire de taille mooy kan adversaire kay bëri nanu mooy kan Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi fi Soham Wardini mu ngi fi mhm. euh, Doudou Wade mu ngi fi Pape Diop mu ngi fi ñoo c'est les adversaires de taille je pense pour pour pour pour Dakar ah alors est-ce que am ngeen yaakaar justement ci élection local yi ñu jëm fi ci Dakar. incha allah am nañ ci yaakaar yamul sax ci yaakaar ces élections ont été ont été déjà gagnées Dakar gagné nañ ko pare mosoon naa ñëw ne leen la bataille de Dakar aura lieu parce que waa ji lu ne def na pour Dakar pour élection bañ am lu ne def na pour Dakar élection bañ fi am dem na ba ni dafay nommer un par décret dafay nommer un maire par décret dugal na ko ci circuit bi xool làmbatu gars yi ne ko doram mu dellu ginnaaw dem na ba ni Dakar da koy éliminer gars yi ne ko mu delu ginaaw mu tardel tardel tardel def ay sondage defati defati defati ñu ne ko fii mënta sotti ndakaaru na gis nga buñu ñu di dox mbok nit ñi dañu naan jaru sax ngeen di campagne ndakaaru mom Barthélemy Diaz la ñuy voté avec la coalition Yewwi Askan Wi maintenant nag comme ay saay-saay la ñu amal affaire nous sommes directs, rek di nelaw rek ne gagné nañu dañuy gagné ba protéger suñu suñu suñu victoire. na ngeen protéger. on sera partout à Dakar partout à Dakar lañu dans 2017 duñu dal 18h30 nous mu dinañ xam kan gagné élection 18h30 le dispositif bi nga avons met à place 18h30 avec les différents bureaux témoins ñi identifier di ci 18h30 bu gagné, ñu doxantu dem ville mairie ville de Dakar incha allah. loolu mooy seen gis-gis. non c'est une certitude. d'accord mais euh, tey scandale li ñuy dégg fay ci Sénégal dégg ko ci ay këru liggéeykaay yu bëri ci euh, ci réew mi alors ay milliards yu bëri yoo xam ne euh, ñu koy luubal di ko naax saayal jàpp lan nga jàpp ni tey moo ci war a nekk responsabilité état bu Sénégal. justement pour que yu ni mel yëpp ñu bañ ko gisati ci Sénégal rawatina ci institution yo wala ay ay sociétés yoo xamante ne ni Sénégal yëpp ñoo ko bokk. waaw damay balaa loolu ma masawu les retraités nga xam dañu toog ba tey jotuñu seen salaire. ñu dem bay toog ci ci tali yi di baare tali yi c'est-à-dire que image boobu wax dëgg yàlla. bu dawul yaram ma xam ne daal Sénégal yërmande jeex na fi ay nit ñu liggéey ba âge boobu mënuñoo jot seen retraite ba léegi pour lan par la faute de ces gens qui nous dirigent mauvaise gestion mais Baba ce du dara gis nga lii que di def du dara parce que nous sommes ñi ngi jiite di ko def dëkk bi impunité Macky Sall en 2012 lan avons fait daf ñu un bilan moral beaucoup plus un bilan immatériel beaucoup plus qu'un bilan matériel

Mais il dit aux gens, faites comme lui. Moi, Djibril Ngom. Oui, faites comme lui. Ah bon Ah oui. C'est, mais c'est l'exemple, comme on dit, euh, par, la, par la pratique. Les anglais di wax learning by doing la def jàng leen ci lii moo tax nit ñi di def leen neex da ngay wax nit sax mu réwmi dal comme yone amu fi lu neex way mu def imaginez 4 milliards 500 ci liñu gissagum 4 milliards 500 ñu jëlé ko ci trésor public dans un pays organisé une administration financière organisée 4 milliards 500 tepp ñu jinn ko ñaar nit kessé dañ ko top da nga japp dégg nañ ko top non kay mu ngi ci non nañ ko top nañ ko top ba ci ba ci ba ci cappaandaw ban jàngat ci scandale yëpp à répétition. mais mais loolu moo lay wan ni réew mi mais mais mais mais valeurs yi changé na. yaakaar nga mu deñ mu jeex. et puis yoon tam def ci yoon def ci liggéeyam comme il faut. mën naa deñ oui bu yoon defee liggéeyam dem jusqu'au bout mën naa deñ l'affaire des 94 milliards est là dañoo yab rek 4 milliards 500 94 milliards pompé nañ ko du trésor public ñu identifier ñu ko def nag def rapport. jox ko serigne Bassirou Gueye ne ko ubbi ci ne ko jappal ñi ak ñi ak ñi ak ñi ak ñi saisir un officier de police judiciaire jël dossier bi maki na ko teg ci sa loxo parce que affaire buñ ko toppoon fa mu jëm mais ñep xam nañ ko ak yenen ak yenen sommes dans un pays où la malgouvernance dafa egg fo xamni nit ñi li waji di wax nee na gis nga euh, euh, euh, da ngay da ngay da ngay ñew ci ci administration wala ñëw ci politique indali jikko yu bax mais jikko yu bon yi dañoo bari ba nga xamné daf lay transformer et c'est ça qui est grave foofu lañ toll te lolu war nañ ci waxat parce que lolu moy violence une violence qui se fait sur les deniers publics de telle sorte que retraités yi actuellement ni mënuñ jot sen salaire violence bobu mom moo tax sur nos deniers publics moo tax écoles yi jangatuñu normalement violence bobu sur les sur les deniers publics moo tax étudiants yi mënatuñ jot une bourse à temps violence bob, moo tax hôpitaux yi mënuñu et c'est extrêmement grave qu'est-ce qu'il faut maintenant mais il faut sévir mais IGE Cour des comptes OFNAC ce sont des corps prestigieux mais ils sont banalisés. c'est-à-dire que seen liggéey amatul njariñ bind nañoo bind bind ba sonn mais à chaque fois ñu bind Macky Sall ne non amna dossier yo xamné mom moom wax dëgg yàlla ci wax Laissez-le parce que ce sont ces gens là qui nga autour de lui ñoom les protéger impunité c'est am mais comme impunité c'est am mais ça va continuer les gens vont penser que c'est les moom mooy en fait les, les pratiques normales dañ dem ba nga normal, ne li normal nekkatul yoon li anormal Il faut que le Sénégal toll actuellement et quand on en arrive à ce niveau là mais c'est extrêmement grave bu on a nag on concepts le parti la patrie avant le parti le ñu waa c'est clair maintenant que ce qui importe le plus mais c'est le parti son frère il a ko affaire pétrole il ne voyage presque plus parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées un peu partout aux États-Unis ailleurs ak y ak des gis qui ko fi Mame à Dakar na des Dakar. pour y jox ko Dakar gis ngeen ko affaire Prodac Mamour Diallo bi nekk fële Louga day woo oh, moom tamit day campagne pour nekk gis nañ ko fi gis nañ Farba Ngom mu taxaw publiquement ne damay jël xaalis damay dem damay jël ay ay ay ay ay ay kii gis nañ ko fi c'est-à-dire li nga xam ni ñu ko wër ñoo koy def mais ñeneen dañ naan mais kii comme ñi ko wër ñooy def lii mais aussi on fait la même chose. taxawaayu yooyu yëpp lan la. ah yow kay xam nga ko. wax ma ko gis nga ko. ñun kay ci dénoncé loolu dañu ko dénoncé dénoncé dénoncé ba. mais fu mu toll nii tollatuñu fenn mais xam nga ko. ah non xam nga ko. Ah, déedéet non parce que loolu moo ñu ni ah, leer. mais mais moo tax. waaw parce que ah. su ma nee xam nga ko. waay mais c'est en tant que journaliste moo tax. d'accord kon na leer waaw no

daan wax ñu naan li ngeen di wax bari na léegi da ngeen di génne ay mbóot ku dénoncé càcc ngeen dafa génne mbóot léegi ñoom ñoo dem ba seen biir ñoom ñoom seen bopp di génne sur la place publique càcc ji nga xam ne moo am ci réew mi que waxu ko bii Pastef waxu et pourtant cest vrai que dañoo dem ba président ne doy na dénonciation bi doy na parce que ça devient banal sénégalais yi war nañu yeewu moo tax yeewu askan bi ñëw parce que un objectif moderne, dans un processus d'éveil des consciences nañu Nous askan bi Nous sommes ba Nous sommes nous période sommes d'accord alors scandale passeport je te renvoie à notre programme Jotna programme Jotna en termes de transparence et de gestion des deniers publics li Pastef proposé partie proposé Macky yu vous dissocier hein, rendre la justice indépendante totalement indépendante Vous vous pour certains postes de responsabilité vous devez appel à candidature Ousmane Sonko du rek ne Abass Fall mi ak mom rek dem gérer non lolou day jeex ci dit mi bu audit yi gis nga gis nga. gis nga wax non non xam nga wax mais nañu bàyyi rek ñu essayer. ci wax bu yomb na. non nañu non nañu mettre en position d'exercice ñu xol. c'est comme nga am diplôme rek diplôme boko amé tubab dafa ni présomption de compétence la Dañu ñort rek né am nga compétence bi mais nañ la buñ la mettre en situation dinañ xam ndax yow compétence bobu am nga ko wala nañu mettre en situation. li gor gui waxon rek ñi fi nek ñam nañ leen li ñuy ñamagul mo ñu jaaxal mais nañu ñam tuuti. d'accord ñu xol à propos de... mais la, question que tu m'as posée au début c'était quoi par rapport à ce que le président Ousmane Sonko wax ko ci li nga xam ko ko dans son propre parti ou pas son parti il bàyyi c'est une belle leçon de transparence et de rappel des principes sur lesquels donc Pastef donc pour lesquels Pastef se bat chaque jour. D'accord. affaire passeport diplomatique vous euh, gis également le petit am dernièrement entre le palais la présidence le euh, ministère des affaires étrangères député Kendi euh, kenn qui mandat de dépôt alors garde à vue Taïdini, bonne ban appréciation tam ngay def ci passeport diplomatique surtout par rapport image bu Sénégal. mais bon,

ñu jàpp ko la main dans le sac Mon trafiqué de faux billets comme mon libre bay dem di campagne golf tout le monde doit être libre dans ce pays Moi, je salue vraiment la libération de notre frère euh, Kilifeu nga xam ni daanaka euh, dañ ko bëggoon def agneau du sacrifice foofu yoon foofu yoon jàngu fa Hein? fa non yoon a ngi jeng yoon a ah ngi jengoon na foofu xam nga xam nga mu parce que xam nga mu non non non kenn comprendre sen position ak la ngeen non non warul won durer non finalement yeen da ngeen di xelu askan wi warul def tout ce temps là en prison kilifa def na wala deful mais base biñ ko jappé illégal tout le monde sait que enregistrer nit c'est illégal mënoo enregistrer nit Hein non mais l'Olben. benn illégal loolu affaire là. mais c'est illégal non non non. mais l'Olben benn affaire la enregistrement bi d'accord non mais benn affaire là. non benn affaire non non ah, non non mais on parle de passeport diplomatique. Baba en en droit est-ce que xam nga passeport diplomatique lu muy jëriñ ci Sénégal en droit non non Kilifeu n'a pas fait de trafic de passeport diplomatique déedéet. non dama ne est-ce que xam nga loolu lu muy lu muy def ci réew. waaw mais loolu wax ko sa gars yi wax ko gars yële wax ko gars yële barke dem jàpp ñu fi ay gendarme jàpp ñu fi ay éléments ministère des affaires étrangères des gens à la présidence de la République Newton Diack biir présidence de la république la toog